j'en profite pour lancer un message à tout le peuple sénégalais ñi nga xam ne ay manifestant lañ ndax ku nekk am nga sañ-sañ en tant que sénégalais bañ ñu la neexee loolu quand même dañ koy nangul man du ma sànni benn xeet manifestant ndax réew bi ñu tëdd ñun dañoo fekkee 1993 foog naa suñu papa ji fekkee na avant loola xeex ay xeex man 80 j'ai pris 93 dama bokkoon si rôle xeex pour que démocratie am Sénégal 2000 ñëw ma ko. 2012 amul lu ñu si dajut Sénégal ñoo ko moom kenn nit moomul Sénégal c'est le peuple ñoom ñoo moom Sénégal dañu un peuple un but une foi kon bu Sénégal bu fekkee dañ ko bokk kenn warul yàq Sénégal kon képp ku am intention yàq Sénégal foo mu li jógee war nañu waxtaan ak yow mais bu buñ la indil jaay doole ndax doole koo ko jaay mu si fippu ndax da ngay politique. waaw mais nag tey. foo fare non tey. non parce que discours bi nga tenir nii. c'est un discours donc politique. waaw te merci beaucoup madame. Mm. damay politique mais tey dañ ma mandaté mu wax ci organisation bi. Mm-hmm. sama position may woo tey may wax ci politique. Mm-hmm. ndax tey ñi ma yónni dañ ma wax boo demee waxal ci tour organisation c'est une organisation à but léegi